làmb ak ay enjeu waxtu wi nu toll nii boo xoolee homme politique yëpp seen xel ak seen xalaat yëpp mi ngi màcc ci naka la ñuy fexe ba hémicycle gi ñu jëm muy quinzième législature bi ñu fexe cee dugg fexe nekk un représentant du peuple loolu nag ay caaxaan mayewu ko mm-hmm. liñ leen yombalal rek ba ma dellu siwaatee ci condition yi mooy parrainage du am mm-hmm. ku am sa fukki million ak juróom wax dëgg fa boo remplir condition ya ca des mën nga dem samp sa dënn laaj dagaan baatu askan wi. Mhm. Euh, nu gis comme ni nga ko waxee fi mu ne nii débat bi nga xamante ni agité wu na jamono yëpp mi ngi tourner autour du parti au pouvoir. mu di Pastef Pastef nag buñ ko waxee formation politique la ki ko jiite di Ousmane Sonko ka ca nekkoon secrétaire tey mooy njiitum réew mi. Mhm. mais Pastef daanaka léppam dafay tourner autour de cet homme bi nga xamante ni vraiment imposé wu na en un temps record ci landerneau politique bi ci ay statistiques yoo xamante ni defe naa histoire politique réew mi mosu ko enregistré. mu àndoon ak ay nawleem ci langue politique bi ci li ñu tuddee coalition. Mm-hmm. moo xam échéance yi fi jot a jàll. donc mais Pastef imposé ci. amee woon leadership bi au sein maanaam de tous ces partis yi nga xam ne ñoom ñoo doon formé ba ba ba bi ci mujj nga tudd ko léegi muy Diomaye président. Mm-hmm. ñu ànd ci présidentielle bi ak lan ca am. Euh, defe naa lii Ousmane Sonko wax tey mel na ni moom laa junjoon te am maa ñenn ñi interprété ne nu ne euh, euh, interpellation gi ma ci defoon maître Abdinar Ndiaye. Mm-hmm. laaj ko ni ko maanaam lan mooy état de santé Diomaye président. Mm-hmm. waaye yàlla mi dara teewul tey histoire jox na ma dëgg. ci démarche bi nga xamante ni tey son Sonko jël na ko mu di démarche boo xamante ni nag il faut avoir maanaam un peu de courage. Mhm. pour le faire pour le faire parce que c'est pas évident échéance yii ñu jëm parce que xam nga ni assemblée nationale gannaaw exécutif ñoom ñoo amee deuxième personnalité de l'État. Mmh. biir assemblée kon du caaxaan. te pouvoir bu toogee ñaare ci assemblée lay jafandu ci bu fa amee majorité ngir loolu mën a gën a yombal. li nga xamante ni moom mooy feuille de route am. Mhm. kon ama en amont lu parti passif waaj la lu ñu étudier la ba jàpp ni war nañ mën a demal seen bopp mais jàpp ma ne tamit exclure nañ ku leen bëgg a jàppale. déedéet mais ku nangoo ànd ak ñoom mais maanaam na ñëpp xam na ni cavalier seul la ñuy def. te bu nuy dem ku ci nekk tamit na nga bàyyi xel sa bopp parce que tamit coow lu bari na. Mhm. te contexte actuel dëkk bi fi mu ne nii bu ci nekk. jàppoon nga ni dara nga wala jàppoon nga ni am nga loo représenté. Mhm. léegi nag lii sunu kanam dana mën a tax maanaam kenn ku ci nekk xam sa bopp donc passif. Mhm. fi mu ne nii décliné na démarche am. na mu fas yéene songee législative yi. Mhm. parce que tamit au départ yeewi askan wi la woon. ñu dem ba ci biir am lu ci xew am ñu ca génn. ci yeewi askan wi waaye yëf yi mujj ëlbatiku doon. Jomaay président waaye actuellement ni nag dañuy delluwaat ci Pastef ak keneen ku ci bëgg ñëw ngir doole lam ngir jàppale leen hmm. bëri na nag ay formation politique ay mouvement yi wax seen yéene ni ñoom fas ku mel ni par exemple. Euh, Malick Gakou moom ne la day jàppale Pastef euh, ku ci mel ni ex député ci légis treizième législature bi euh, Marème Soda. moom itamit defe na ak ñamu àndal. jàpp hmm. jàpp na ni ñoom Ousmane Sonko la ñu bëgg jàppale. Hmm. bëri xëy na bu amee yu ci dolleeku danañ fi ñoo waxtaane waat ko. mais en résumé man personnellement gisuma lu ci jar débat c'est une décision politique. te daa jot sax man ñu wane seen bopp c'est une boo xamante ni jàpp naa ni. Mm-hmm. bu dee expérience la ak bu dee màgg la ci wàllu politique. mille 2014 ak léegi li fi jot a jaar yëpp mu dëkk ko. Mm. ba mën a toog ci réew mi à travers partiam defe naa ne bu ne dee dem ci législative yi demal boppam am na fu mu ko léegi nag surprise dina am wala du am ndax dana ci am ndam loolu mi nga sunu kanam. Mhm. ndax kenn ku ci nekk fi mu ne nii la lay may ndam defe naa euh, léegi campagne bi ñëw yaa xam na ngay jëflante ak sa base ak say militants pour mën a am ndam. Mhm. jàpp naa loolu amul inconvénient. c'est vrai que de l'autre ci analyse yi wala ci ñenn ñi nga xamante nii danoo soppoon Diomaye président. Euh, jàpp nañ ni mbir mi warta mën a demee nii donc gis naa ci sorti ku mel ni maître euh, Moussa Diop fipp mhm. na wax na moom it version am ci mbir yi na mu tëddee ca groupe ba. Mhm. mais man je pense que affaire góor la fi mu ne nii. Mhm. jarul coow ku ci wóolu sa bopp sampal sa ndënd lii sunu kanam le 17 novembre askan wi dana àtte. ndax leneen loo fi wax rek ci agitation di war nañu waruñu dil am na dil amul c'est normal c'est pas normal. Mhm. damaa jàpp ni loolu guddal jël la rek. parce que le plus important pour moi comme mbir yi dem na nii Ousmane am fulla faydaam ne. dafay def cavalier seul hmm. ak ña ca bëgg ànd mais yow it amal sa ful la yor nga sa formation politique yor nga sa mouvement yow it demal sa bopp hmm. parce que bu ñu bëggee ramener waat le débat euh, ci mbir nu mu tuddi sax principe yooyu noonu ba c'est vrai li woon jomaay jomaay la woon na mu demee nii ba tey mbir yi tasaaroo loolu yéen la mais pour moi le plus important bu Ousmane newul woon sax dee demal boppam kenn ku ci nekk législative comme coow li bëri na te bëgg nga sa doole bëgg nga am légitimité politique. Hmm. c'est le moment c'est l'occasion. parce que nag législative yi man xaaruma 17 novembre de après 17 novembre lay xaar parce que schéma gi ma yor fii. Mhm. déjà pur PRP taxaw. ñu ngi waajal seen alliance. bu bu ñëw ci sama deuxième point. ah kon baax na. Mhm. kon baax na ma yemagum foofu donc ci tàmbali bi daal. Mhm. Euh, peut-être euh, boo revenir ci communiqué bi. Euh, ak raison yi nga xamante ni moom la Ousmane évoqué. Euh, loolu da nga leen koy mën a nangul parce que man pour man en politique chacun est libre d'orienter tey jii nii xam nga. Euh, bëgg-bëggam. ci ni mu ko bëggee ak ñam ci fa yéenee àndal. Hmm. voilà donc la ca des nag quant à débat euh, war am na war amul et puis man sama me met très de voir des gens yoo xam ne seen démb dafa rafetoon ci ànd wax dëgg fa yàlla ñuy dundandoo yu bëri daal. masalan ma jox la exemple tey nga gis Bougane di xarab Sonko wala xarabante di am ci ñaar yi mais surtout ci côté Bougane bëgg a waxee noo xam ne tey démb waxee woon noonu. ci bi mhm. ànd bi neexee. lan moo xew ci diggante bi yooyu dem kon cela veut dire à la base bu fekkee seen ànd principe kalal dama ne bu yëf yi jotee. na ku ci nekk am sa fulla ak sa fayda. Mhm. mën a demal sa bopp. mën a demal sa bopp 221 suñu biir nuyu naa la bu baax a baax ak mbokku internet yi yam sa euh, daal di nga koy sax juñu sànq mu di euh, coalition bu nar a am. ci opposition bi PRP euh, bu Déthié Fall taxawu Sénégal bu Khalifa Babacar Sall ak euh, parti PUR bu Serigne Moustapha Sy bi nga xam ne daanaka euh, tegoon na ay tëkku ci gàmm gi ñu génn ni ko maa ngi koy xaar législative mu mel ni la mu waxoon moom la mettre en avant ndax bu ñu seetee ñett ñooñu nga xamante ni ñoom lañu lim ni ki démb amaloon nañu ab waxtaan xool nees def ba mën a ànd ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal yaa Moussa loolu itam day nekk beneen euh, beneen force boo xamante ni dafay jóge ci opposition bi alors le fait ñu gis le premier ministre mu ni parti Pastef dafay demal boppam de l'autre côté on voit des coalitions yi nga xam ne ñu ngi formé wu est-ce que loolu aussi c'est favorable pour ñi nga xamante ni tey ñoo nekk ci nguur gi te war a wut li nga xam ni moo di majorité à l'Assemblée nationale donc ça se voit moom mii responsable moralu pur mhm. la mu diggee woon ca gàmmu gi ñu génn ci li waraloon clash bi à l'endroit d'Ousmane mhm. ak la xew seen diggante mi ngi mettre à exécution tey jii nii euh, la mu waxoon ndax ne na mi ngi leen di xaar ci législative yi alors kon loolu sabab fi mu ne ni discussion mhm. ndax ci xibaar yi ñu fanu daje mooy seen siège siège parti pur voilà siège parti pur fële ca VDN ba fa la ndaje bi am diggante Déthié Fall Khalifa Babacar Sall. Mhm. ak Cheikh Tidiane yoon mi nga xamante ni moom moo fa teewaloon pur. moom mooy secrétaire moom général national bi. ndax dañu bëgg amal ñoom itamit seen alliance. seen mhm. coalition. par rapport ak li nga xamante ni mooy échéance yi ñu jëm muy législative yi. waaw euh, maintenant euh, est-ce qu'il y a un problème dans comme nee nañ fi mu ne ni dañ bëgg a demal seen bopp Sonko tamit dee demal boppam léegi nag di set ci wàllu